ci leen ko bu maa ngi leen di nuyu di leen sant di jiital si nuyoo bi kilifa diine yi kilifa aada yi te di leen sant lool te di leen wax ne fan yi soxla nañ leen bu baax a baax ndaxte dëkk bi wax dëgg yàlla ya fii jaxasoo na loolu di am mbégte waaye tamit di am euh, tiis métit mbégte bi mooy saa yu nu wootee saa yu nu nekkee si jafe-jafe saa yu nu amee ay problème ngeen def ko seen problème ngeen def ko seen jafe-jafe moo tax yëf fii su demee ba diis sax day mujj oyof ndaxte daanaka mun naa ne yaa ngi gën a sonn comme di leen di jaajëfal bu baax a baax Euh, am na nag tiis ndaxte suñ sañoon euh, ñoo ngi suñu liggéey yéen tamit yée ngi yée ngeen ni si seen yitte mais euh, dañu teg ab injustice injustice mun naa ne pour la troisième fois si ñaari at ñu couper suñu signal tubaab yi nag dañu am lu ñuy wax une fois ça passe deux fois ça lasse trois fois nag ça casse biñ ko ñëkkee def 2021 mars 2021 woote wuñu sit-in euh, porté wuñu plainte doon jàpp ne ñooy si état de droit neen bàyyi yëf continuer suñu liggéey ren événement marqué yi bi mu amee février 2023 bi ñu daal di woote sit-in daal di porter plainte au niveau de la cour suprême ba février ba léegi cour suprême enrôlé wul suñu dossier maanaam joxaguñu benn dat ne bi sàngam ñëw leen ngeen plaider plaider dossier bi su suñu waxee ñu ne ah le temps de judiciaire n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire des gens ordinaire n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire politique est plus rapide que le temps médiatique lu tax te si diggante bii nii bi nu déposé suñu plainte ak léegi ab politicien tey am na jafe-jafe ak beneen politicien ñu daal di ko teg daan ñu dem appel ñu tegaat ko daan amaat na jafe-jafe ak benn jigéen ñu teg ko daan ba léegi ñooy dem en appel kon ci diggante bi am na ay procès te ba léegi ñun suñu procès bi ñu déposé woon ba léegi kenn euh, kiiwagu ko planifié gu ko euh, bi yoon nag injustice mënul weesu li lu ñu dal semaine bi passé ndaxte événement xew na man mii nekkoon naa si plateau keppaar gi daal di def sama analyse en tant que juriste en tant que avocat bi ñu ko defee si saa si ñu daal di couper suñu signal te ba léegi xamuñu kan moo ko couper ak lu tax mu couper ko bi nu laajee Babacar Diagne si saa si dafa ne moom il n'est pas derrière ça que su fekkoon moom la dina woote dina def mise en demeure mais bi yoon du moom. Euh, ñu laajtee xool feneen ñoom ñëpp ku si nekk comme ni ko Moustapha Diop waxee ku si nekk daanaka patate chaude la euh, bi ñu demee nag ba si parce que mujj naa laaj DG Canal Plus ne ko euh, lan moo xew ban kan moo la wax dagg sama signal mu ne ab lettre ministre de la communication mooy Bocar Thiam waaw moo ko ne mu coupé suñu signal pour. message mensonger et subversif maanaam état bi dafa jàpp ne li ñu doon wax du dëgg te tamit day yee fitna man nag keppaar gi dafoon naa émission bi li ma wax ñaari yëf la benn gi mooy euh, le droit n'a pas été dit la politique a été dite lu tax ma ne le droit n'a pas été dit ndaxte mbirum viol mbirum agression sexuelle euh, il faut déjà nga wane conjonction sexuelle maanaam jaxasoo am na te loolu waxu ndaw si la lu nu am donc ba léegi amul lenn luy wane ne que conjonction sexuelle am na loolu moo tax ma ne le droit n'a pas été dit et la politique nag a dit dite ndaxte gis neen sorti ministre de la justice bi ne acquittement amul ci dossier bi te en tant que professeur de droit acquittement tey ci wàllum crime maanaam su la tegul benn daan ci wàllum crime loolu tu es mooy différence ak relax relax si wàllum délit la ñuy wax relax fii nag kii di Sonko kenn condamné wu ko si wàllum crime maanaam viol ak menace de mort donc acquitté nañ ko loolu mooy dëgg mais tey su demee ba taxaw ne kenn acquitté wu ko loolu day wane li ñu wax mooy que la politique a été faite c'est pas le droit ñaareel bi mooy kii di Pape Ndiaye depuis trois mois ñoo ngi koy ñoo ngi koy tëj kaso te Pape Ndiaye li mu wax mooy daa am ay magistrats yu d'accordul si ñu yóbbu euh, dossier bi si chambre criminelle te l'histoire te lui a donné raison parce que effectivement décision bi génn semaine bi passée euh, du compétence sous chambre criminelle donte mun na requalifier mais décision boobu noonu tey mooy wane ne que effectivement li Pape Ndiaye wax dëgg la chambre correctionnelle moo ko waroon jugé mais fii nii amuloon benn charge suffisante pour yóbbu ko chambre criminelle donc tey Pape Ndiaye encore une fois ñoo ngi woote libération am ñoo ngi wootee tamit indemnisation am depuis trois mois te ñoo ngi woote sax ñu honoré ko parce que li mu wax tey wane na que c'est un journaliste d'investigation que li muy wax xam na ko te fu leer la ko teg donc euh, loolu laa bëggoon wax beneen point bi mooy gis naa si réseaux sociaux yi ñu bëri ne ah Walf de mooy euh, Kumba amul ndey man damay ne Walf ku amul ndey la ku amul bàyyi la tamit parce que tey suñu baay nekkatu fi te moom moo nekkoon suñu avocat moom moo doon défendre tey njaboot bi parce que benn njaboot la ah, muy euh, bi mu jur ak buñ ko jural tey nag euh, li xew mooy Sidy Lamine waxoon na ko ndaxte ne woon na politiciens yi laata ñuy yéeg pouvoir ay démocrate leen maanaam dañuy ñëw jege askan wi wante nag suñ demee ba am li nu bëgg dañuy nekk ay dictateur lii xew coupure signal bi te joxuñu benn notification te article 192 si bi nu sukkandiku si code la presse dafa ne il faut ñu notifier écrite motive jox ko nag responsable entreprise bi te loolu ba léegi amagul kon loolu noonu tey moo ñu mayuñu tey ñu dem gisi suñu juge de référés pour wax ko mu lever suspension bi kon ba léegi tey injustice bi nu bi nu am nii mun naa ne lu amul fenn la jaay doole dëgg la euh, ba ba noppi tamit am na lu nuy faral di wax waa état lii wane ne ñoom si jaay doole lu nekk muy force reste à la loi force reste à wax dëgg yàlla la loi c'est une fiction invention wu nit la bu njëkk ba philosophie li ñu doon wax mooy état de la de nature ñu dem ba gis ne que ku mel ni Hobbes dafa ne woon l'homme est dafa ne woon l'homme est loup pour l'homme ñu gis ne que il faut ñu créer li ñuy wax état la loi pour mën a aar ñëpp mais tey nag li ñu gis mooy euh, la loi n'est plus là pour protéger ñoom li ñuy yëkkati mooy la force pour jëlaat Hobbes nee naa lom est un loup pour l'homme damay ne l'état est un loup pour l'homme tey force bi ñuy wax su nu waxantee dëgg fan yi passé du sax le peuple mais pour man force bi c'est les sans voix baadoolo yi nga xamante ne génn nañ ne non trop c'est trop non à l'injustice non à lu mu tëddati euh, jaay doole bi yooyu yëpp ñu xeex ko donc loolu noonu tey mooy wane na que euh, sénégalais yi euh, li daan am ndangootuñ ko te ñun ñëpp nag li bëgg mooy ñu liggéey parce que rôle Walfadjri tey c'est un rôle qui essentiel li nu bëgg tey mooy gindi askan wi wax leen lii am les enjeux tamit participer à la démocratie du Sénégal te li am mooy dëkk bi euh, état bi ñi amee pouvoir tey dañu mépriser dañu tuutil askanu Sénégal les sans voix lu tax mu wax loolu mooy képp kuy yëkkati di xeexal askanam kenn état bi du ko rendre mukk hommage du ko delloo mukk ñukkal Sidy Lamine Niass léegi tey mu mat juróomi at bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna ñu bëri doon neen wax ne que maison de la presse neen ko euh, neen ko ko tuddee te may fàttali moom moo ñëkk joxe teg euh, première pierre ci maison de la presse mais état bi daful loolu euh, en 2020 jëm ci yàlla Babacar Touré bi mu génnee àdduna te mu nekk ku baax ku ku méritant état bi tegul 24 heures mu daal di ko jox maison de la presse daal di ko tuddee fan yi passé tamit gis nañ ko dem si yàlla Mame Less Camara bi mu génnee àdduna même pas 24 heures ñu jël maison de la presse tuddee ko ko te ñoom ñëpp mérité leen ñoom ñëpp ñu baax leen xam naa leen bu baax a baax mais dama ne Sidy Lamine Niass tamit il n'est pas moins méritant mais tey le vrai problème mooy le vrai problème mooy képp kuy xeexal askanam état bi da lay jàppee noonu tey démb Sidy Lamine Niass la ëllëg benn Guy Marius Sagna ak état du ko musa a rendre hommage loolu mooy dëgg képp kuy rendre képp kuy xeexal askanam état du la faale état day jàpp ne que rendre le hommage sax ay appel à l'insurrection la wala leneen kon encore une fois il faut que injustice yi yépp ñu teggi ko tey nag ñun lii nii ça nous rend ça nous porte préjudice ndaxte euh, man sama pap def na si man yar def na si man xam-xam mais nag wax dëgg yàlla lu ma luxus xaalis ñun dañu amee entreprise amee ay charges amee ay dépenses chaque mois bi ma ñëwee bees charge Walfadjri yi xëy na ay 20 millions la nekkoon par mois tey ñoo ngi à près de 60 millions multiplié nañ ko par 3 te loolu moo tax ba léegi di ñu jàppoon mooy suñu personnel il faut ñu mettre leen à l'aise il faut que ñu maintenir leen fii nii démission yi licenciement yëpp amul ginnaaw yàlla wax dëgg yàlla ndax li ñu teg mettre mettre leen dans de bonnes conditions xëy na tamit moo tax mais nag wax dëgg yàlla euh, à l'impossible nul n'est tenu euh, moo tax tey jël nañ décision déposé naa sànq benn note de service personnel bi ma liiral leen ko mooy les récents événements ont provoqué des conséquences néfastes sur la bonne marche de notre activité avec la coupure sans délai de notre signal TV ce qui ne sera pas sans conséquence sur le personnel qui doit se battre afin de sortir de cette impasse tout le personnel du groupe Walfadjri est d'ores et déjà mis au chômage technique et des licenciements collectifs suivront pour la survie de l'entreprise maanaam fi mu ne nii comme que amatuñu suñu gagne-pain dañu ko xañ faaw ñu répercuter ko tamit ci suñuy charge moo tax personnel lu Walfadjri yépp tey teg leen chômage technique mooy weer bi su deewee xamuñu fu leen di fayee ndaxte bàyyi ñu ñu liggéey suñu mayoon ñu liggéey duñu am mukk problème depuis ñeent at mu suñu am problème ñaareel bi tamit kenn du liggéeyloo nit si zéro moo tax it ñu ne licenciement collectif tamit moo si topp fi mu ne nii daal li nu bëgg ñoom état mooy Walfadjri tëj ñun nag di leen def le tout ba Walfadjri du tëj mais nag il faut faudra serrer la ceinture. beneen point bi mooy état tey nee naa sànq déclaration de guerre la ñun tamit on va pas attendre l'autre jour fi mu nii. activité état activité gouvernement lépp dinañ ko boycotté parce que li ñu jàppoon mooy li jàppoon mooy eh, ñoo ngi si état de droit ñuy liggéey ñuy jël seen euh, euh, meeting di leen diffuser te wax dëgg yàlla fay ñu woon sax lu ko jar day ñëw ñuy waxaale lu mel ni état maanaam opposition sax ñooy gën a fay <coughs> mais nag pour accepter pour que mu am euh, équilibre moo taxaw ñuy nangu loolu. fi nii nag <coughs> boykot la <coughs> fi mu dem ba jeex duñ leen mayeti dara nen ne Walfadjri daa jëng nangu naa nen ne Walfadjri pro Sonko nangu naa comme que ñoom léegi dañ ñuy xeex ñun tamit dañ leen di xeex Sénégal nag tey moo ngi à la croisée des chemins man de waxoon naa ko 19 mars bi passé nee naa góoma élection 2024 ndaxte état léegi dafa nekk ci xeex te am na ñett bomb yuy ñëw suñu kanam mun naa sax wax ne ay bomb atomique la bi si ñëkk tey mooy arrestation wu Sonko ndaxte gis neen condamnation bi li mu jur Sénégal tey suñu demee ba di ko arrêté di ko yóbbu kaso ah gëm naa ne que dëkk bi daal du nekk ci si jàmm ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy inéligibilité Sonko loolu tamit nee naa jàmm du am ndaxte tey sondage yëpp li muy wane mooy Ousmane Sonko mooy le favori pour nekk cinquième président de la République dama ne sondage yi jënd naa ko moom la président am moom la ambassadeur yi am sondage yi wane na kii gagne au premier tour sax troisième bomb atomique mooy bien sûr troisième candidature loolu sénégalais yi duñ ko nangu du conseil constitutionnel mooy décider loolu duñ ko nangu mukk ñeenteel bombe bi sax mooy tey ñu dem ba di tëj Walfadjri foofu tamit ah man de léegi ne naa leen somage technique man li ma mun mooy ñu bàyyi ma ma liggéey ma liggéey su ma bàyyul ma liggéey nag ma seetaan leen fi mu ne nii daal. suñ bëggee tëj Walfadjri nañ jël responsable seen responsabilité may jeexale rek si Zola affaire Dreyfus bi nu tegee injustice citoyen français boobu noonu dafa jeexale taxam ne la vérité est en marche et rien la l'arrêtera man nag ma ne la révolution est en marche et rien ne l'arrêtera jërëjëf